carte bu daa mel ni asu pikk la de wala lay sax dégg nga gën a lan. gaana gi gaana gi. gaana gi. nga ne xamoo dara ci carte. na. nee pare na jug nee na pare na ngi noonu ci digg géew bi combat bu ñépp doon xaar combat boo xamante ni ñaari xale yi ku ci nekk wax na Laurent Ndiago Bou Siteu <laughs> ah ay bi combat bi li ci waroon def yépp ñaari xale yi def nañ ko Laurent Ndiago wax na Bou Siteu wax na fi mu toll nii nag wax amatul kaay leen ñu jëf lañ leen di wax Laurent Ndiago combat bu neex wala combat bu nara neex arbitre bi xool na ay siisam arbitre bi xool na ay siisam arbitre bi sifflé na mbokk yi dimanche 27 février 2022 Bou Siteu mu ngi dox ci kaw Laurent bu defal ndànk Bou Siteu Laurent Laurent ma ngay tegi feem dañoo nar a xeex wala dañoo nar a bëre Bou Siteu ngay dóor fatt na ko Laurent ngay arrière Bou Siteu Laurent Laurent nañ Bou Siteu nee bi jug leen fi am la Bou Siteu ci am mbetteel ah mooy tul de Laurent am na benn avertissement arbitre bi leen kaay Bou Siteu Laurent Ndiago arbitre bi sifflé waat na ngi dox ci koom Bou Laurent Bou Laurent li muy def ragalu la stratégie la bu muy teg bu reculer nga daw ñëw mu reculer waat nga daw ñëw bu dawee dal sa kaw mbaa du am lamb ji lamb la boo xamante ne dafa laaj dal ci Bou laaj dal ci Laurent Ndiago parce que combat xale la ñoom ñaar ay xale lañ ñoom ñaar ay xale lañ ndeysaan nee ko daa naaj nee na daa naaj Laurent loolu la wax buur Laurent nee ko daa naaj deux avertissements pour Laurent Ndiago ndeysaan daa freiné bu ak benn crochet crochet long la Laurent Ndiago Bou Siteu Laurent Ndiago Bou Laurent jaako Bou Siteu Bou dem na Ardo Bou dem na Ardo Bou Siteu dem na Ardo arbitre bi sifflé waat na Bou Siteu Laurent lu muy bëree bu dem na arta ba ñëw bëgg a jeexal combat bi Laurent Ndiago Bou Siteu Laurent cokkaas na Laurent cokkaasaat na Laurent dóor na Laurent ngay cokkaas ñoom ñaar lu nar a xaw Laurent na cokkaas yi dalul Laurent cokkaasaat na Laurent ma nga naan arbitre bi kii yi dafa toj Laurent mu ngi naan arbitre bi kii dafa toj Laurent Ndiago bu Siteu Laurent Ndiago bu Siteu ma ngi koy cokkaas nañ ba ci angle bi bu da ko nar a génneewaat saaku yi Laurent am na deux avertissement na moytu na moytu na Laurent cokkaas daa bëgg xeex ak Bou Laurent dóoraat na cokkaas na Bou fayu na ña xeex dóor mu daanu mbaa am dóor mu daanu mbaa am Bou gémmiñ ko na Bou gémmiñ ko na Laurent yóbbu Ardo bu nu muy xeexee baaxul parce que dafa jàpp ne Laurent da koo ragal te Laurent ragalu ko déedéet ragalu ko entraîneur na ko ne defal ndànk nee na ko bu dalal nee na dalal waa kii fu mu génnee ah entraîneur bi la moo toogal ci moo toogoon ci siège bi yombul de combat bi combat bu rëy làmb ji du làmb ji ñuy fooye wala bu ñuy sàggane ndax ñoom ñaari xale yi ku ci nekk làmb ji dafa am lu muy def ci sa carrière ndaysaan trois avertissement pour Laurent Ndiago maa làmb deret bu bare bu génnee mbaa Bou Siteu ak Laurent combat du mujjee yam fii wala déet aa ah. aa ah. lan moo Modou Anta de ko xam-xam ne yàgg naa jàpp pitax Modou Anta yàgg naa capté pitax de Modou Anta pitax bi pitax bi xaar xaaral ma xool bu dem na ardo ba ñëw combat bi arbitre bi sifflé waat na Bou Siteu Laurent Ndiago Laurent cokkaasaat na na Bou Siteu moom ngeen jàkkaar lool Laurent Ndiago moo la woon ginnaaw Bou Siteu jiital tànk càmmoñ ndijoor loolu nag mooy garde normale ak fausse garde Bou mooy garde normale Laurent fausse garde la taxawee mu ngi dox ci koom Laurent mu ngi dox ci kaw Bou Bou cokaas na ndaysaan Laurent daw nañ jàppante Laurent Bou Siteu ndengañante nañ Laurent ngi dóor ci suuf Laurent ngi dóor ci suuf Laurent Bou Siteu Laurent ngi dóor ci suuf Laurent ngi dóor ci suuf Laurent Bou Laurent ngi noonu ndaysaan jàppante nañ ak Laurent Ndiago fu combat bi di mujj ndaysaan ñu ngi xeex ñu ngi xeex mbaa dóor mu daanu du am Bou Siteu mbaa dóor mu daanu doo am hey ay waay lamb <laughs> eh, fayu Bou Siteu ngi dóor ci suuf Laurent caxabal na ko bu bañ na ñu ngi fayu loolu fooram la Laurent Bou Siteu Bou Siteu ci suuf mu ngi dóor Bou Siteu Laurent Laurent ngi fayu Laurent ngi fayu mu ngi dóor ci suuf public bi yuuxu nañ waaye ñaari xale yaa ngay bëre waayi eh, Bou a ngi dóor ci suuf Bou a ngi dóor Bou a ngi dóor door na ko xeex nañ laa ilaaha illallaah oh! waay xale yaa ngi xeex xeex nañ ba génn saako yi waay lii la la waay Laurent Ndiago am na trois avertissements dégg nga supporter bu yi nee nañ dina ko rey supporter bu Siteu wax noonu waay combat bi neex la waay bu wala déet Laurent dem na njaago dem na Ardo Bou yóbbu na Laurent Ardo Laurent yóbbu na Bou Siteu waaye da ngay jaabante Ardo waaye eh! waaye xale wi daay oh ji neex na combat capital la kii dëkk Géejawaay kii dëkk Diamaguène kii di yeewoo ci keppaaru Balla Gaye 2 kii di yeewoo ci keppaaru Siteu combat bi mënul yomb ku ci nekk wax na sa terme kii nee na ko combat mbayaar yi la eh arbitre bi sifflé na rek Roland Dóor arbitre bi daa sifflé rek Roland Bou Siteu a ngi doxaat ci kawam Laurent Bou Siteu Laurent Bou Siteu Laurent Bou Siteu ñoom ñaar ñu ngi lewaatoo Laurent Bou Siteu kenn demagul ba tey Laurent Bou nañ lu nar a xaw nañ Laurent bu Siteu jàppante nañ ragal naa hypercule mu rot mun na fee am de ragal naa hypercule war na fee mën a am de moo noo gisee làmb waaw làmb ji macha allah wax dëgg yàlla xale ñu ngi bëre lu doy war ndax gars yi dañu foog ay comédien la mais ñi ay mbër la ma gis ñuy def moom ay ndaanaan lan daal looloo ma gën parce que combat bi ñoom ñaar ñëpp dañ koo jox cër. waaw non jox say mooy yoon parce que lamb ji fi mu leen mën a yóbbu la. parce que lamb ji àdduna di bàyyi xel la moo tax ñoom ñaar kenn du bëgg a fooyee daal. Ndeysaan dégg ngeen Mor bu parcelle li mu wax ci ñaari xale yi <laughs> ñu ngi ci géew bi ba tey. Bou Siteu Laurent Ndiago hey Bou hey Laurent Ndiago jàppante nañ. buuse taratul lekk taratul naan manga nga ne ci ginnaaw ma nga naan lor àndànk ma nga naan bu dóoral dóoral dóoral buuse cey làmb du yomb ci ñaari xale yi Laurent siggi na léegi Ardo wala déet Laurent ak bu ànd nañ dem Ardo ñoom ñaar ñoom ñaar àndandoo nañ demandoo ardo <laughs> waay làmb gi jee la xamoo li ngay wax ndeysaan des fois artiste comédien sax du ci mer mais loolu terme la rek arbitre baa ngi noonu di leen waaj a ñoom ñaari mbëri ndeysaan arbitre bi sifle waat na Ndeysaan Bou Siteu Laurent Ndiago ñoom ñaar ku ci nekk dem na ardo ba ñëwaat ñoom ñaar ku ci nekk combat bi joxe nga li nga war a joxe premier temps jeex na Ndeysaan ñuy delluwaat ci deuxième temps bi xool ñoom ñaari xale yi fu ñuy mujj Bou moo la féetee càmmoñ Laurent Ndiago moo la féetee ndijoor kii jugee jàmm ki jóge waay ñoom ñaar xale yi ku ci nekk wax na ci combat bi waaye la wax ñoom ñu ngi xaaraat lañu jël tànk bi Laurent jël na tànk bi Bou rëcc na Bou jël na tànk bi Bou rëcc Bou Siteu Laurent Franc Ndiago bu Siteu mu ngi dóor ci suuf dóor Laurent moytul bu ngi dóor Laurent Ndiago bu Siteu Laurent jàpp na Laurent rocc na loxo bi bëgg a dóor bu ngi dóor ci suuf bu ngi dóoraat Laurent ma ngay fayu Laurent ngay fayu Bou Siteu Bou Siteu Laurent Ndiago combat bi muy mujj ci ñoom ñaari xale yi fayu na Laurent siggi na Laurent siggi na Bou Siteu Laurent Ndiago Laurent stade bee ngi ne tekk rek supporters yi nee nañ tekk rek ee eh, Laurent Ndiago Laurent Ndiago bu ee eh, combat bu metti waay jaxabal na ko daan na Laurent Ndiago daan na Bou Siteu Laurent daan na ko jël bu xabal na ko daan ko jël bu waay ndeysaan ndeysaan Laurent sportif la sukk na ndeysaan bëriyee na waa lii lan la xoolal Laurent ma njaab li Laurent kaay Laurent Laurent Kaye